salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax ah, dañ leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221 nu ñu leen koy waxee rek saa su ne ñoo leen ni génneel ñenn ñi nga xamante ne yéen a ngi leen di xaar fii ci Sénégal Buzz 221 waaye tey dama ñëw fii Pikine certifié koo xamante ne sénégalais xam nañ ko àdduna xam ko ci digganteem ak kenn koo xamante ne ndeysaan dama naan kenn la dugg ci xolu sénégalais muy digganteem ak Cheikh Béthio mu Serigne Saliou tey nag su ma nee Cheikh Béthio mu Serigne Saliou mbokk yi dama seet si Adra Fall di kenn ci moom seen diggante yàgg waaye nag dama koy bàyyi nag mu nuyoog mbokku téléspectateur u Sénégal Buzz jërëjëf yaakaar naa ni ñu ko nekkee woon di wax yaakaar naa bi ñu nuyooyee ba pare ñu bëggoon a xam tuuti rek sa diggante ak cheikh bi xamante gi fan la jógee ak door gi. Oh, diggante ak cheikh bi day ginnaaw dogal yi suñu borom dogal muy Serigne tubaa ci boole gi ma booleek moom mi ngi jaar jëmm ju naan sëñ Moussa Diakhaté doonoon taalibeem bari woon Pastef te nekkoon fii ci biir Pikine di mag ci ñun comme ni ko gone yi defee rek daan dajeek moom ci barab mu xam lu ñu xamul wax nu sëriñ bi jël ñu yóbbuñ ci moom ba tey sëriñ bi def nu tey nii nu mel ci moom ba tey sëñ bi def leen ni nga xamante ni tey moom ngeen doon ci moom tey bu ñu doon xamaat tuuti tey ci Cheikh bi parce que yaakaar naa nit ki loo ko xam-xam rek am na ku la ko gën a xam moom mi nekk ak moom lan nga ñu mën a développer tuuti ci Cheikh bi. bi nag moom xam naa maanaam ndox la ci bëri rek li nga ciy tànk di ko di ko jariñoo loolu rek nga ci mën a xam waaye Cheikh bi moom yàlla dogal na ku sëñ Saliou mënu ko xam du Cheikh bi moo nëbbu waaye ki ko def noonu moo ko làq. Serigne Saliou moo ko làq ba jóge fi dinañ wax nag ni mbirum yàlla maanaam yombul yàlla fu mu def fu def sekkereem dooleem jëpp dafay ne waaye ci saayir nii day mel ne doole du fa ne loolu nag la Serigne Saliou Mbacké defoon seex bi mu doon nit ku bari njariñ ci saayir ku bari teraanga ku am yërmande ku bëri sutura ku bëgg jëmmi doomi aadama te loolu lépp sëriñ Saliou Mbacké ko def ci moom nun nag ñu ngi koy sant bu baax ndax bu nu xool léegi xool na bi ñuy ànd ak moom xam na sëñ Béthio defar nañu waaw xam na sëñ Béthio defar nañu ñu ngi koy sant bu baax tey ñaan ay leeram gën a sotteeku ci ñun yërmandeem gën a sotteeku ci ñun. sant kooku ñu ngi koy santaat yàlla suñu borom da koy ñaanal ndax euh, ñu naan rek nit la koo xamante ne dem na ci zaahir waaye mënu fee jóge ci baatin mu ngi fi ànd ak ñun saa su ne waaye dañuy ñëw bu ñuy toogee tey li nga xamante ni moo di débat bi yaakaar naa ñaari dat yi nga xamante ni xëy na suñu borom daan na ko fekkelee cheikh bi ci zaahir ren mu wute ko muy 17 avril ñu ñëwaat ci 17 ah, avril. waaw 17 avril. 17 avril lay mooy suñu cosaan. waajur wu góor ak waajur wu jigéen di naaru darmanko yi naaru sugu fara yi nekk njàmbur Louga ca fañ boobu laa bokk waaye suma ma nee 17 ab sunu cosaan la cosaan fa sunu borom cosaanu doomu aadama yàggul mhm. cosaan ca sunu borom moo sax mooy dëgg fa nga jógee mhm. te fa ngay delluwaat foofu mooy sa cosaan set avril ji nag day sunu cosaan ndax mboole seen lu doon sàkku mbaa lu doon bëgg mbaa sunu mbo sunuy waajur bëggoon ko ci ñun ñu ngi ko am ci 17 avril keroog bi ñu jébbaloo ci seen beccu ndaw lañu mel ni xale yi mel a ah, nu bëggoon mu dañ ci ñun mu tëñu mu mu të sunuy waajur waaye keroog bi ñu jébbaloo ci Cheikh Béthio moo nu may lii te jébbalu sëñ Béthio 17 avril la 17 avril nag mooy bis bi nga xam ne ñun tentaakoon yi moom lañu ñu am moom lañ fi sëñ bi bàyyeel ndax ñett ndigal yii lañu sëñ Saliou Mbacke bàyyeel màggalu sëriñ tubaa gi gàmm gi ak xasida yi sëriñ Touba yi cheikh bi nee na man maa ci yokk 17 avril ndax lu ma am ci 17 avril laa ko am 17 avril doon bis boo xam ne ne buñ ci wax duñ fi jug ñun cantaa lu ñu ko fonk fonk fonk ba ndax kat sëñ Béthio mi ñu koy faral di nettali 1946 daje bam daje woon ak sëñ Saliou Mbacké ca taset sëriñ Saliou romb ko jëm ci dëkk bu naan kër Cheikh Madiop doon fa seeti góor gu yàlla dimbaliwoon ci jamono jooju muy Cheikh Ma Diop doonoon jëmm joo xam ne euh, kilifa yi murid yi ku daan ñëw ca wet googu daa nga ñëw ca moom Serigne Saliou jëm ca moom dajeeg romb Cheikh bi mook magam Serigne Gille ñu ne ca tool bi bay sëñ bee seen saret ba daw topp ca daw topp ca ngir nguuru lang ca nguur ci tuuti delluwaat calam ne woon cala ca koose bi taxaw sëriñ bi na ko koose bi ko ne koose bi taxaw mooy dawalkat bi daal na ko neel nongoli na yegsi mu ne ko nongoli yegsiwul mu ne ko jox ko loxo neel mbàkke mu tàllal ko loxoom ne ko mbàkke mu ne ko nootu tudd mu wax ko ana foo dëkk fii mu wax kee ca tool ba kan la mu ne ko kee sama mag la te ngi la mu ne waa bu ngoon jotee na ngeen ñëw fekk ma kër seen bàyyi sax maa loolu nag daa curtey lépp lu ñu am ci bis boobu lañ ko amee ndax euh, day mel ne kat euh, sëñ Béthio ak sëriñ lu ci waay wax doyul waaye nag 17 abril ci gàttal ko loolu daal laa la mën a xamal ne moom lépp lu ñu am ci bis boobu lañ ko amee ndax maa ngi fàttaliku ko cheikh bi di ñu wax ne bi muy ñëw ba sëriñ Saliou ñëwee dañ leen damaa damaa am gan yu fi ñëw ñaari gan dama am gan yu ñëw waxul sax lim bi nee na ñu yegg ba ngoon jot war a war a war a war a war a yàq ñu yëglu sëriñ bi nee nañ xaar gan yi ñëw dëkk ba yëpp jamono jooju boo dee kilifa ñëw dëkk ba ñëpp ay ñëw. di siyaar si nee ñu jekki-jekki am ñaari tuut tànk yu ñëw sëriñ bi ne nag ñu waajal maanaam loolu nag mu jaaxal leen gan gi sëriñ bi gan gi sëriñ Saali mbàkk doon wax ñan la muy ñaari jëm yooyu nee na ñu yàkk waajal jox leen cheikh bi nee na ñu xéewlu ni ni ñuy def rek bu gone biiram peese nelaw a ciy ne nee nañ ko tëdd nelaw sëriñ bi yeewu leen nee na keroog keroog googee fa lañ fanaan te nee na seen waajur dafa doon góor gu tàng goo xam ne daaw leen bàyyi sax ñu guddee àll waaye nee na keroog waxul nee na biñ ñëwee ci kër gi lu ko jiitu di ko tàgg di ko wax te fa ñu jëm dana ko ah ñooñu day ñu naan mbàkk mbàkk yi dégg naa leen waaye ñu baax lañ de dem leen te ñëw moo jiitu waaye ci gàttal moom daal ñu ngi sant bu baax nga xam ne diset bi daal danañ ko def nañ ko daan defee seex bi nag ci saayir làqu na ci suñuy bët waaye jugu fi ndax ku ma xool man xoolal mu njëkk xam ne sëriñ bawuma lañuy lañuy la ci sëñ becco du mbubb ma du yëre yëre dàll ya mbirum yàlla ci nekk ci moom la mbirum yàlla jooju nekk ci moom fi mu nekk ñun xamuñu ko fa mu fa mu nekk ca moom xamuñu ko loolu sëriñ bee ko def waaye lu ñu ko gën a bëgg gën koo topp gën a sellal suñ dox suñ diggante ak moom gën a gis njariñ li bawoo ci moom di ñëw ci ñun ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax tey ñaan sëriñ Saliou yokk ay leer taas ñu ci barkeem ci barkeem sëriñ Saliou ci barkeem Serigne Saliou yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem ba tey dañuy tos ak moom ci zaahir bi parce que nan li ma koy waxee rek kilifa la goo xamante ne yéemoon na ñëpp ci zaahir ba taxit tey ba muy génn. fas ko feetee at gii di ñëw si si ñëw fas yéene ko ni ko askan bi di waxee rek anniversaire de décembre ñu fas yéene ko amal ci première bésu koor loolu tamit yaakaar naa ne taalibe ñu ngi ciy wàcc ci santaat Serigne Saliou. waaw loolu de moom am na. Mhm. ndax suñu lépp ak cant la. Mhm. bu nu fàttali ko Serigne Saliou. cheikh bi. première fan ci weeru koor lañ wax waaye boo ko xoola diggante ñaari fan la ñii ñii ñaari fan la ci ñoom ñii benn fan la ci weeru koor te wax nañ ci ci ci ci ci benn fan weeru koor maanaam ku ci jóge ak weeru koor mag gum mag weerum njéggal gi mu doon kon loolu de waxuñu ko moom waaye dañu joxe tegtal rek waaw ndax ku ñu def nii nu mel bu doonul kooku ñu waxit jege naa moom mbaa mu doon xaritam waaye daa fu ñuy wax ci saayir la ñuy waxee mu mu mu mu mu daan ñu def ni ñuy def làqu ci saayir làqu gi mu làq ci saayir daf koo làqu suñuy bët waaye ba tey lim mënoon ci mu loolu la mën ci mun ndax ñun ngëm ak pas-pas moo ñu boole ak moom ñu ngi koy sant daal bu baax. ngëm ak pas-pas boole leen ak moom yaakaar naa ku xam Adra Fall xam ko ci liggéey bi nga xamante ne cheikh bi dénk na ko comme yu liggéeyu waañ bi ndax dénkaane googu bi la ko seex bi di joxoon yomboon na ndax yaakaar naa li yàlla jagleel si cheikh bi ci mbooloo macha allah ak liggéey bi nga xamante ne dénkoon na ko. waaw loolu sant nañ ko ci bu baax. waaw loolu de loolu de sant nañ ko ci bu baax a baax a baax a baax a baax lépp lu ñu am bokk nañ lu ñu ko gën a may. mooy liggéeyam bi mu ñu dénkoon liggéey bi mu ngi ñu ko dénk 96 96 la ñu ko dénk ca këram ñuy waajal màggal du ko defee janatuma janatu Mahwa jëwri ñuy mag yi daje boobu tout tànk la ñuy waxtaan di far ay di joxe ay cër këram jii ci Mermoz di saalub soxna Mboose ñuy wax commission yi di wax commission ba yegg ci boucherie bi ne sunu jëwriñ ju mag bi naan Ibou Kouati bu ne boucherie mu ne at ana Adra Fall ma jug taxaw doon xale bu ndaw waaw nañ ko ci def loolu moomu jox cër bi waaye bokk na ci lima koy sante man day musuma won lu ko naqari ci liggéeyam bii ndax sëñ bi de xam naa ci moom fonk gum fonk liggéeyub sëñ Tuubaa bi ba nga xam ne du ci maslaa kenn te du bàyyi kenn du ko caaxaane ñun bi ñuy ñëw danoo fekk mu daan jël pël yi di leen fay pëlu fooraa ñoo yore lépp ah xam nga boucher rek mhm. ñu daan def leen neex ci yëf waaye moom boobu loolu na liggéey bu sotti rek mhm. ñun bim ñu koy jox foofu lañ toll nii mu mel tey ba boo ñëwee fekk cantaakoon ñoo yor seen nag ñooy fekk seen nag man mii ko sëñ bi ci man mii la ko sëñ bi jaarale bi ñuy waxtaan ci daan wax naan murit du tële dara seex mhm. bi danaan wax naan murit du tële dara murit du tële dara baat boobu daf ma daf ma am fu ma yóbbuwoon ba nga xam ne ne man lu ma gis ak jàpp naa ne war naa ko mën ah ñuy def réunion jëwriñ ma nekkat kon fi ñu toll sëñ bi nee mu di tële dara ma ne jëwriñ ne kenn ku nekk na ma jox ñaari nit ci daaraam nan doon borom Pastef rek te sawar loolu mooy sababu tey boo fi ñëwee fekk fii ay jàngalekat yoo xam ne boucher lañ te doo ko xam ñoo xam ne gendarme lañ ñoo xam ne menuisier lañ ñoo xam ne ay maçon lañ ñoo xam ne ay élève lañu tey am na ñoo xam ne teraanga ji ñu am te yoroo ko seenu njaboot ci formation boobu ma leen formé woon ci lañ ko amee ba tey dooni boucher moo waral tey boo fi ñëwee di liggéey boo bokk ci daara duñ la bàyyi nga liggéey ndax dañ koy liggéey te duñ ci soxla dara dañ koy liggéey te duñ ci soxla dara lépp dañ koy delloo delloowaat sañ bi lu mu joxul soxla wuñ mu doon ku baax ku fonk nit daan ñu defal bu masaan liggéey bu nag mu yëkkati ay nag joxuñu naaw ku la ku la fees loo day moo la ndawal ñu def ko rend ko def ko ay saam kenn ku nekk jël yóbbu sa njaboot ñu ngi koy sant bu baax tey ñaan sëriñ tubaa yokk yërmandeem ci ñun cheikh bi amuñu fayam déedéet cheikh bi amuñu fayam de koo fay de waaye nag suñu digganteeg moom dañuy gore ba ba ñuy dee ah dañuy gore ba ba muy dee waaw nee na moo nu ko wax keroog bis bokk naa ca ña ànd ba sëriñ Saliou Mbacke làqoo ci saayir sëñ Cheikh yàlla na yàlla yokk ay fanam bi saal Saliou Mbacke làqoo ñuy dem di yeeslu sëñ Cheikh Mbacke bokk naa ca ña ànd moom la mu wax lépp maa ngi koy déglu dane mbàkke man de buñ ma déggee ma jëm feneen fur fii maa ñàkk ngor mbooloo mii ma yor doole ji ma yor sa waajur waa ma ko jox bu doon rey ron xay gi ma jox ko sama bopp nga toog fi ñun nag foofu lañ toll amuñu doole bariwuñu koppar waaye nag sunu ngëm ak sunu ngor ñoo ko moom. yéen a ko moom ba tax la nga xamante ni cheikh bi defoon na ko ci seen Cheikh Saliou ngeen àndaat ak loolu nga xamante ne cheikh bi def ko muy exemple ngeen àndaat ak moom ci Serigne Saliou Thioune mi. Hmm. jërëjëf foofu de moom waxee naa fa sawar bu baax la tax ma di ci sawar bu baax mooy sëriñ Saliou ndigal Thioune mbaa xam nga ne yoonu li ca gën a rëy mooy ndigal. diine lislaam li ci gën a rëy mooy am gërëmal yàlla waaye yoonu mu li ci gën a rëy mooy ndigal bu demee nag ba àddina sépp maasandoo bu nu tuddee sawtur teg ca ndigal kenn moomu leen man mii du ma ko waaye dama ko bëgg ndax lool maa la law wallaay dama bëgg ndax wallaay ci raw dal gi tey gi yar gi kenn du Serigne Saliou Thioub déedéet déedéet déedéet wax yàlla wax dëgg yàlla kooku noonu la mën a mel kooku sëriñ së waajuróom wa sëñ Béthio moo ko tàggat te noppem googu ak dalam googu bari na ku koy yàpp mbaa nga di ko xeeb ca loolu nga ko bëgg a xeewee ndax yërmandeem du wax lu ñaaw du def lu ñaaw loolu bàyyam bi muy dund di sëñ Béthio moo ko seeree loolu toog naa ba tàyyi mu du ko wax moom de tawféexam mooy daf maa ragal moom de lii taw feexam mooy daf maa ragal waaw amul fit daf maa ragal loolu sëñ Béthio da ko daan wax ci moom mu doon jëmm ju baax ju modeste li nga koy seen nii sëriñ bee ko tàggat sëñ dama bu doon ab togg la dama naan Cheikh bee togg moo nduggi teg kaw diiram def ca la mu war a def ba mu sont mu yàq jox jaam njëriñoo moom la ko sëñ saalu def maa ngi fàttaliku ndigal lu ñu sëriñ Saliou Mbacke joxoon mu togg yoo xam ne dañ ko daan togg 92. at lañ ko def daan ko yóbbu kër sëñ Touba ga chaque ak chaque dimanche lu waaye xéwloo kër sëñ Touba yi kër sëñ Béthio la ko daan jox sëñ Saliou jox ko ndigal ñu daan togg benn nag ak ñaari saaku ceeb ñu ngi ko daan toggee fii ci golf buñ ko mësaan togg ba pare sëñ Saliou Thioune mii moo koy def ci oto bi bu nu bu nu toogee ba quatre heures de matin trois heures la ñuy taal toog ba mu sont fajar gi balaa seex bay génn dem di xëy building communal ñu yekk ko ci mbana yi ba ambale ko di ko xaar boo booba jamono jooju communauté urbaine amoon na ay minicar yoo xam ne ne ay Hyundai la booba seex bi moo doon secretaire général communauté urbaine oto boobu ko daan jël bu ñëwee bu seex bi génnee di xëy xool togg yi ñaan ci ñu saajal ko sëñ Sall sëñ Saliou teg ci cabine ne ci cabine bi yóbbu Touba midi pile dana fekk mu taxaw buntu kër sëñ Saliou may fat lu ko gërëm lu ko sëriñ Saliou Mbacke gërëm ci loolu waajuróom ba gërëm lu ko gërëm te booba yombul woon de cant gi ñun taalibe yi dañ ñoo defal ñu yooyu làmmiñ di wax rek te moo ñu war dañuy wax ba dee waaye cant gi danoo fekk sëñ beccu ànd koog njabootu boppam mooy ay jarbaatam ay soxnaam ay rakkam ay magam barkeel gi sëriñ Saliou Mbacke barkeel la cant yi ñu yóbbee ñun ñu dugg ci ñun taalibe yi liñ ci boole nag buñ ci génnee ngor teg ne te ak taalibe mënuñu koo am suñu diggante ak sëñ Béthio cant gi bu nu génnee sunu ngor teg ko ne wax dëgg yàlla nekkatuñ ci génnee sunu ngorkat teg ko ne mooy gëm nekk sëñ Béthio laa gëm waaye mënumaa gëm doomam waaye ma ne soo ko gëmul ba jàpp ne sëriñ sali sëñ Béthio mooy sëriñ Touba nga gëm loolu waaye waay xanaa war ngaa xam ne ko doomi sëriñ Touba lañ waaye war maal leen ak taalibe dañ koy ñàkk ak taalibe dañ koy ñàkk nit dangay ngay sa bopp doo ñëw ci mbooloo ñëpp bëgg lu baax nga bëgg lu baax ne fa sàmmal sa ngor sàmmal sa dignité sàmmal sa fulla bu la ci kenn xeeb moom daal xam naa ne sant nañu bu baax sëñ Saal buñ doon wax ci moom duñ fi jug man nag cas spécial laa ci moom Sëriñ Tubaa daf maa booleeg moom lu jiitu lii sama kër gi sëñ be ñëw na fi ñaari yoon ma jox ko sama jarbaat yu ñu doon yóbbu daara ja beneen bi ci sam papa la doon seet si jour boobu mi nga ànd ak magam jun naan seen gille ak jëwlu ñoom jun naan xari joxaane fii lañ toogoon sëriñ Saliou cuun mënuma koo fay su ma dee wax ci moom du ma ci doyal ndax mbaaxam yërmandeem goreem te booba lay ma booba ma lay wax ci bu njëkk ay tuut tànk lañ nekk ay xale mu nekkoon ci mairie Pikine bii mu ñëw di tudd waaye taalibe ndax fii boo ànd sëñ Béthio dangay ngay teel a am jom dangay ngay a am fulla doo bëgg ku la yeb loolu da lay jural da gis xale bu ndaw teel da ngay teel a takk soxna teel a samp kër loolu sëñ Béthio bu lay tàggat noonu lay tàggatee da lay teel a jox soxna teel laa maykal teel laa def responsable waaye ku ma ci mas a xam nga am yitte mbaa àddina dab la ma solee sama daal dem ci sëñ Saal ne ko diw de moom nangam man nangam mu def sëñ bi yabal na ko mu tudd si tudd ko mu am nu mu demee ca borom ma jëli ko ñëw ba ci yoon wax mu génnee kalpeem génnee ay koppar wàññeeku dem këram ma dem ca dalal ba jënd xar indi ba pare woo ko doo ko ñëw ba tey ordonnance yi waxuma ko ba tey sëñ Saal melaw wii du tey boo duggoon ci biir famille ba noonu la fa mel sëriñ bi nag da ko koo waxoon ñoom ñooñu mooy li ñu bëgg lépp ñu ngi koy amee ci bu amee seen ngërëmu waajul moom seex Béthio waaye moom dafa ànd ak Cheikh ba Cheikh bi jàpp loxoom yóbbu ko ci Serigne Saliou Mbacke bu ngeen seetloo am na vidéo yoo xam ne ñu ko ciy wane ba naan ke moom day la ma doon sàkk ci moom defal nga ma ko barki démb yéen a ngi fa lu fii ci mbu ci ci Thiès mu naan ko yow bokkul ak ñi naan dañoo seexal seen baay déedéet yow seexal sa baay rek taxul ngay jël njëbbal yow maay sa baay dañ maa seexal. ñu tolloon foofu ci Serigne Saliou Thioune yaakaar naa ne euh, kaddu yi nga xamante ne yëkkati nga ko ñin ñi nga xamante ne tey ni ma ko waxee woon rek naw naa ko ngir dal gi yar gi ak tey gi waaye mu doon koo xamante ne macha allah néew ma Serigne Saliou Thioune sax waaye Cheikh bi tàggat na si njabootam foo xamante ne ku leen gis bëgg leen. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu am na. Mm-hmm. sëñ Béthio ku yàlla dimbali la. sëñ Béthio sëñ Touba deseelu ko dara moo tax joxe joxe na. àddinaam joxem léppam sëñ Béthio boo déggee ñaan dafa joxe àddinaam joxe àllëgam bi mu fi nekk di liggéey soxlawul dara fu barab bu mu nekk di liggéey yi tey sëñ Saaliw woo ko fu ba sëriñ bee ko doon suturaan rek waaye yi tey sëñ Saaliw ko fa ba ad gii séentuwul woon dara ëllëg moom bañ dañu ko daan wax daan diggoomu maag yéen àjjana diggu ma ak safara man daal li ma xam moo yeggal leen sëriñ Saliou Mbacké mii moom mii nag dimbali ma ba ma xam ci moom la ma xam ci moom doy na ma sëkk loolu laa digg ak yéen donc sëriñ Saliou nag moom euh, muy sëriñ Saliou cuun yàlla dafa dogal mu am ay rakk yu baax waaw yu ànd ak moom mm-hmm. waaw ñu di leen sant man Adra mm-hmm. du ma noppee di sant njabootu Cheikh Béthio ndax euh, dan maa may seen bopp lu particulier tàmbalee ko sunu nday ja soxna Mboose Diouf di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi te li bëgg ci njabootam Sëriñ Tuubaa defal ko ko ci di ci teg soxna Aysa Kan di ko ñaanal mu yàgg fi te wér te li bëgg moo ko xam yàlla na ko Sëriñ Tuubaa defal ñu am njaboot gu baax ñu am njaboot gu yaru njaboot gu am teggin réew mi li muy jaxasoo yëpp ngay dégg doomi kilifa yi dégguloo doomi Cheikh Béthio ci dara ndaw nag ndaw nga ku toll sax ndaw dox ko ay déedéet toll sax ndaw dox ko ayul waaye kenn dégguju leen ci kenn déggu leen ci lu ñaaw déedéet kenn déggu leen ci ñaaw diirub seen waa seen waajur jóge léegi sunu nday yooyu ñu ngi leen ñaanal ak seen njaboot gi tey ñaan yàlla yokk seen fan di ci toj sëñ xaadim waaw am taxawaay bu rafet digganteem ak magam ànd koog moom jël engagement dugg ci taalibe yi di ci liggéeyal waajuram wa ndax loolu moo ko tegoon ci yoon woowu doon ku rafet xel ku yàlla dimbali ku jaxasoo ak ñëpp ne ci wetu magam bii lu mu nekk ànd ci ak moom ku nekk gis na ko ci vidéo yooyu ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam may ko jàmm te yàlla musal leen man daal li may ñaanal njabootu sëñ Béthio gii yàlla na leen yàlla musal cat ak seytaane yàlla na leen yàlla musal cat ak seytaane ndax ñoom ñooy suñuy sag man dañ ma ñoom ñëpp awuma ci kenn xaar ma yàlla awuma ci kenn xaar yàlla lu nit jàpp ne ñemewuñ ko wax man may nañ ma ci ñoom damay lijjanti ba lijjanti loo xam ne sax damay dem ba ci biir xam ne xëy na waruma waaye man loolu ma war samay sang la nit nag li nga bëgg da nga koy bëgg foo tool di ko sàmm loolu moom ma dab sama diggante ak njabootu sëñ Béthio ñun daal ñu ngi sant di ñaanal njabootu sëñ Saliou Thioune digal mi di ko tàmbalee ci soxnaam su mag yi di soxna Maani Thioune di soxna su baax ku sëñ Béthio gërëm ku yaatu ndax maane moomu rakk sëñ Béthio jum bokkal ndey ak bàyyi moo ko jur mooy moom la naañ Amadou Thioune Amadou Thioune moo mujjee làqu doon jëmm ju baax ku bëggoon sëñ Béthio sëñ bi yar ko ñoom ñëpp sëñ Saal moomu ak Maane moomu ñoom ñëpp soxna Mboose moom moo leen yar ñu jox ko muy ànd bu yàgg ku sëñ Béthio yàgg gërëm muy Maane sa mën a joxe togg mën a togg mën a joxe togg moo jegee ci kooku damay ñëw ci Fatim Cuun Fat Cuun di di ñaareelu soxna Sëriñ Saaliw ndax du nu fay gëj ndax ni nu mel ci sëñ Saal la te buñ fa ñëwee gis nañ taxawaay ñoom bi ñuy am ci ñun kon nag yëkk yëkkati ay kàddu cant di sant njaboot gi te ñoom ñaar duma leen ci boole ñu am yitte ñu fonk taalibe yi ñu am taxawaay seen wetu borom kër di ko jàppale ci liggéey bi yàlla na leen sëñ Tuubaa gën a dimbale ñoom ba seytaane bu mu dugg mukk ci kër googu yàlla nañu ànd ba faw ndax jàmmi jàmmi boroom kër kat njaboot gu déggoo la kon ñu ngi sant bu baax di ñaan di bég loolu amin mbokk yi ñu sant yàlla bu baax di ñaan di bég loolu yaakaar naa ne waxtaan bi nga xamante ne tey moom lañ seqoon ak sëñ Abdoulaye Fall mbokk yi ko doon xaar ah ndax ni ñu koy waxee la rek waxtaan la boo xamante ne ku ci nekk da nga koy yëg sa bopp ku ci nekk di nga ciy gis sa bopp ndax jëmm ju seddal jooju nga xamante ne moo fi ju bàyyoowoo ci zaahir yaakaar naa ne mu ngi fi ak ñun ndax du fi jug mukk du fi jug mukk ñu naan nit booy jëf jëfal sa jëf fii lay des saa su ne waaye boo demee dem nga waaye jëfam a ngi fi lépp li nga xamante ne mu ngi ko daan def cheikh bi saa su ne yaakaar nañ ren tey la gën a màgg ndax taalibe njaboot gi bàyyiwuñu ci dara waaye mu ma am loo xam ne rek dama naan ci laa bëgg tëjee tuuti rek ak sëñ Adra Fall am loo xamante ne njabootu seex Béthio ñenn ñi ñu ngi koy ñaawlu ñenn ñi tamit ci yoonu murit ñu ngi koy ñaawlu yaakaar naa fan yee ñu ngi koy gis ci soxna soosu di njël yi nga xamante ne ay taalibeem ñu ngi koy jël di ko teg loolu yoonu murit rafetlu ñu si bëri rafetluwuñu ko ah loolu de moom xam naa ne xëy na sax duma ci mën a sori ndax ngëm-ngëm fa mu nekk ci nit moo doy waar ngëm-ngëm fa mu nekk ci nit ba nga jàpp ne bant bii moo la mën a jariñ loolu kay dox jëm ci loolu rek ko xam boo furoon bëgg a dugg ligganti moom moomu jàpp njëllam ba ak fa mu ko toll ba di ko kii bu yàggee day nuru leneen waaye daal xam naa tënku ci ndigal mooy li jariñ taalibe tënku ci ndigal mooy liy jariñ taalibe fii nag mais yéen loolu d'accord ngeen ci tey koo xamante ne tey nen la ci yoonu cheikh bi la nekk ñi jël njëllu ñi nga xamante la mooy njëllu soxnaam di ko di ko di ko def non mais loolu rafetul mais loolu rafet sëñ sëñbeetu sëñ Béthio bàyyiwum fii pour ñuy topp topp ay jigéen ak yooyu déedéet loolu sëñ Béthio fii sëñ bari na ñu wax ay wax waaye nag loolu mu ñu wax wax dëgg yàlla vraiment dafa am noo ko war a jàppee sëñ Béthio danaan organiser forme organisation moo tax mu indi lii di def ba mu yàgg jëruñ ba mu yàgg mu def universel parce que dafa am bis sëriñ Saliou Mbacke ne sëñ bi sa daara yooyu sa daar yooyu ci sow ak sama daar yi ci penku day muy daar yi xel kom yooyu wutewul lépp lu waaye di sàkku sama daar yi ci penku moom Serigne Saliou nee na boo ko sàkkoo ci daara yi sëñ Béthio am ko waaye nag dafa am loo xam ne ne vraiment euh, takk ay njël kii ak yooyu ku nekk dégg na biñ fi mujj sëñ Béthio daf ñoo tere woon ñu takk njëllam njëllam moom daf ñu ko tere woon ñu takk ko waaye naka la xel mën a yanoo di joxe ndigal ñu takk ay njëlu njëlu soxna dafa am loo xam ne diine da koo diine da koo séexlu diine dafa seexlu jigéen du jiite dafa am ay charte yoo xam ne moo may jigéen warta mën a jiite ndax da koo mayul mu war a mën a jiite du jiite ji juma juma du jiite jàkk du tudd doom du may soxna waaye dafam am fu ko yàlla yem loo kenn waxul na cër bu nekk jigéen mën na ko am waaye nag toog ca kaw ah jàppee sa bopp lu kenn xamul lu mu doon ah loolu day wax dëgg yàlla sëñ Béthio di jàngaluñu loolu la preuve rek leen ngay wane ndax image bii sëñ Sall di wane ak image bii ñeneen di wane ñaari image yooyu bu bu ne woon léegi tànn ci image bu rafet booy mën a wane jëmmi Cheikh Béthio yow boo ci tànn. spectateur dañ xam ba lañ ciy tànn <laughs> ñoom laay bàyyi ñu tànnal ma rek ñoom. ma man ñoom laay bàyyi ñu tànnal ma. waa ma ngoog. waaye sëñ Sall daal nii muy doxee. man maa toog kenn waxuma man maa toog kenn waxuma man keroog bi sëriñ bi làqoo ci saayir man na ci réunion fii ci kër ak Ahmed Fall Braya la am ku ma woo yónnee ma ma xool mu jaaxal ma ma génn woo sëñ Sall moo ko ma ne ma Adra na def ma ko maa ngi fi ah waaw xanaa da ngay leer lu waay looloo am de maa ngi nii di jóge Touba nan daje Mermoz kër Soxna Mboose sëñ Saala Gore ñu fekkante fa ak moom fa lañ nekk keroog ba deux heures du matin moo ma jox ndigal ak ñenn ñoo xam ne samay bokk taalibe lañ di ay jàmbaar mel na jëwriñ Mor Diop jëwriñ Thiawaso ay mbub ñoom moo ñu dem fekk ko man na salaam ñu xëy jiitu ñu dem fanaani man na salaam mhm. keroog lañ ko ànd ak moom mën nañ denc sëñ bi waaye nit day gore mhm. fii lu la mën a defal mhm. ba tax nga ne dangay ngay xeeb njabootu sëñ Béthio gii yaa ngi juum wërsëg bu yaa taxula teewul am kilifa day defaral say mbir rek sëñ Saal mii du koy yàq cërub kenn séntuwul woon lii déedéet kii bu dañ koy tàggu ngir def ko lii du ko doon man lu ma wax lu ma lu ma xam laay wax tàmbalee ko ca moom moom xam man xam naa waaye nag yàllaa ko tànn teg ko fi moo war a baayam dañ ko def ay taalibe lañ ay taalibe lañ waaye nit ñoo xam ne ne bu ñu gisee njabootu sëñ Béthio bëgguñu leen yow taalib boo xam ne nga sa baay laa gëm te bu gisee doomam sa mel na mel na sa xol bi day jóg mais loolu fu mu mën a ne mënul ne. déedéet sëñ Sall dañ leen a réeral. Mhm. billahi wallahi taala yi dañ leen a réeral te sëñ Béthio mënoon dellu si waat fii. Mhm. danañ xam ne réeral na leen sëñ Béthio mësta réeroo ak xalif général des Mourides. Mhm. te daf ñu wax leen fex bu leen réeroo mukk ak xalif général des Mourides. ndax xalif général des Mourides moo fi nekkal sëñ Touba. waaw sëñ Béthio wàcc làqu ci saayir sëñ Mountakha Mbacké ne euh, sëñ Sall gël tàppe sëñ Saalu ndigal cuun na ngeen ma ko indil. waaye ñoo sant sëñ mun Muntaxa waaw uh-huh. waaye ñun ñoo sant seen sëñ Muntaxa gis nga fii may wax ak yow uh-huh. danoo waroon a créer base à part uh-huh. ñun taalibe sëñ Béthio yëpp di sant sëriñ Muntaxa sëriñ Touba ci benn baat rek mooy dimbali gim ñu dimbali ba dugal ba ba ba ñu ci yoon wi waaye bu ñu bàyyi woon ñu taar dafa am xam nga ñun dañoo bëgg de trop. dafa am sañ-sañ boo xam ne sëñ Béthio la ko yàlla defaloon sëriñ Salim sëriñ Salim sëñ Béthio la defar defal ko fit daga nga daan wax naan mbaa ragaloo mbaa yàkkamti woo sëñ Béthio du ma ànd ak ku ragal duma ma ànd ak ku yàkkamti loolu la daan wax sëñ Béthio moom sëriñ Saliou ñun nag sunu cofeel ci moom li sëñ Béthio daan jàpp rek ni mu daan doxee ñun noon la naan doxee ay discours am la naan joxe suñu bëgg moo mel noon ay discours la naan joxe li muy wax la ñuy wax li muy doxee la ñuy doxee loolu bokkoon na ci ñu bëri mënuñu mënuñu woon comprendre ndax li ñuy wax donte sax réaliser wuñ ko waaye xam-xam la boo xam ne moom moo ko def ci ñun ñu di ko dund ndox mooy naan muy dugg di dugg say cër lam fay yokk yow lam fay jariñ waxtu wi nga koy naan yow mënoo koo xam loolu mbirum boppam la waaye nag sëñ Seex sëñ sëñ Muntaxa def nañu mbirum sëñ Béthio wéy na ah taxul ñu ne mbirum sëñ Béthio dakk na déedéet mooy sañ-sañam ba waaye nag nangeen ngeen tënku ci diine tey jaamu yàlla ci yoon woowu la sëñ Saliou Thioune ndigal nekk ca loolu lañ ànd ak moom li def nag suñu digganteeg Cheikh Béthio bi mu fi nekk daf ñoo jàngal di ñu defar di jàngal ku ci am doom moo lay kii ku ci lu ci waay bëgg moo la koy defal waaye léegi nag ci saayir làqu na lu lan moo ñu dese wane image sëñ becc ci ñun mooy di rafetal ànd ak suñu mbokk ànd ak bokk taalibe yi xam ne ci yoonu murit la nekk doxee ni murit yi du doxee ah sant nañ ko bu baax sama sëñ beccoo ngi ne le sas bii ñu naan sëñ Saliou yoo ko def xasida yu sëñ Saliou Mbacke dajale yooyu boo ko jàngee moom la naan sas bi soo ko jàngee sëriñ Saliou Mbacke nee na yooyu am nga yoolu ku jàng sept tonnes cinq cent yi sëriñ Tuubaa bind ci yu nu xam ak yu nu xamul sama doom jee la koy taxaw fii tari ko ba mu jeex bi may ñëw ci moom ak mbon laa indaale ci cheikh bi moo ma fóot defar ma may ma seen waajur ma am ci doom mu tuddee Serigne Saliou maa mu tuddee jëmmam ji seex Béthio ñuy dox ba ñu jëm mag kii am 9 ans kii am 7 mu laaj ma leen ma jox leen mu jébbal leen Serigne Saliou ba ni sëriñ bi làqu ñu nekk sëñ seex Mbacke daaw jégle leen sëñ Cheikh Mbacke wàcce kenn kaa ngi tuubaa kenn kaa ngi fii kenn ki sampal moo nekk sama kër Touba sam sampal naa ko kër wutal ko soxna ma nga fa moom rakk jaa ngi fii ci man man njaboot gi ma am ñëpp ñëpp a mën a jàng xasaayit da fekk tey ñu génn dem ñenn ñi dem cees waaye njaboot gi ma am ñëpp ay jàngkot xasaayit lañ ñi gën a tuuti xasida yi sëriñ Touba yi la ñuy fooyee moo loolu man dama ko mënal sama bopp lu ma ko sama bopp ñun daal ñoo ngi ci ndigal li topp ci ginnaaw sëñ Saliou Thioune ndigal di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér pexe nag jubul sëriñ Touba ah diine du pexe de déedéet diine ndigal la ñun nag ci ndigal loolu ren tënk di ñaan sëriñ Saliou Thioune ndigal yàgg fi lool te wér di santaat sëriñ Touba bu baax di santaat Serigne bu baax tey ñaan Serigne Saliou Thioune fi loolu de wér loolee lañu indiloon tey mbokku téléspectateur u Sénégal Buzz 221 dalal ki xamante ni tey Modou Adra Fall waaye laataa ma koy mu tàggatoog mbokku téléspectateur u Sénégal Buzz damay nuyu bu baax a baax sama kilifa ga sama maam ju baax jooju sëñ Lamine Niang yaakaar naa moom it sa soppe la ah. ba a baax a baax naan ngi lay nuyu bu baax a baax di la char di bàyyi rek sëñ Adra Fall mbokk yi mu tàggatoog mbokku téléspectateur u Sénégal Buzz 221 waaw yow da yóbbu ci sama xel sa maam jooju di Lamine Niang di jàmbaar ju sëñ Béthio wóor woon ba tey di ponkal ci liggéey bi ba ni ko fi sëñ bi jëlee yóbbu ko bitim réew doon ku baax ku am yërmande bari na sama classe gi ñëpp moo ñu wutal soxna ñu ñëpp mooy waxtaan ak cheikh bi mooy sox mooy soldat mooy doxi mooy wax yàlla na ko yàlla fay ci njabootam di ko ñaanal foofu mu ne la mu bëgg mu am ko bu dellu ci njabootam ci barkab sëriñ saaliw di bëgg nag loolu di ñaanal jëmm yu baax nekkoon ak ñun ci liggéey bi sëriñ Xarim Béju ak cëruñu Alaaji Njaay ak ku naan Asan Mbër nekkoon ay boucher nekkoon ci liggéey bi yàlla jële leen fi ñu leen di ñaanal sëriñ Tuubaa yokk seeni leer te yokk seeni teraanga may santaat mboole seen boucher yi nga xam ne moom ma sëñ booleel waaye équipe buuse bi maa ngi leen sant bu baax a baax ci seen taxawaay seen dogu ci liggéey bi seen farlu seen dëggal nit lu muy dugg daa war a dégg ci moom ah bu loolu weesoo it maa ngi leen di sant bu baax yéen waa Sénégal Buzz 22 di bég ci nii ngeen ko defee woon ci màggal gi fan yëpp yéen moo koy wax ngir bëgg koo def amaana xëy na jot gi mayewu ko waaye mënu mu leen koo ñàkk bañ a gàntal de santaat sëñ tubaa seen sit bii yàlla na dem ba doon ay tele yàlla na doon dem ba doon ay tele yéen ñii ko yorit yàlla na yàlla defal tawféexu ba foofee ñuy dégg daraja gën a kawe ci liggéey bi ngeen def ngeen yegg fa ah kii tàmbalee ci lu ndaw xeebuloo ko fonk ko njottal ne mën nga am lu rëy waaye kii am lu ndaw xeeb ko mën na koo jural ñàkk fonk ba tax na njariñ la bu ca nekkee mën na koo bañ a gaaw a gis yéen nag yàlla bu leen cat dugg yàlla leen sëñ Tuubaa defal ndam defal leen teraanga dafal leen sutura te liggéey bi gën a barkeel di ñaan sëriñ Saliou sëriñ Muntaxa yàgg fi loolu téwér ñaan sëriñ Saliou sëriñ sëriñ Seex moom sëriñ Saliou yàgg fi loolu téwér di ñaan sëriñ Saliou ndigal cuun suñu sang bi xalif général xalif ku lu cantaakoon mu yàgg fi te fii mu bëgg a yegg liggéeyu Sëñ Tuubaa mu yeggale ko fa jërë ngeen jëf di baalu ñëpp àq tey jéggalu jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di baalu àq bu baax di leen jéggulu yàlla a baax ah yàlla yàggal taxaw ne mi ngi koy liggéeyal Cheikh Béthio yàlla a kàttanal te yàggal ko fi waaye di ko santaat bu baax ci disponibilité bi nga xamante ne may nañu ko ñu toog ak moom nga xamante ni mooy waxtaanee naa tey moo nekk seen kanam di leen jiite di ko ñaanal yàlla yàlla taxawaay may gudd fan may ko li nga xamante tey liggéey bi bàyyam liggéeyaloon si yoonu Serigne Saliou yàlla na liggéey lu ëpp la nga xamante ne liggéey na ko cuun ñu ngi lay siyaar baax a baax a baax nuyu Omaro PDG maa ngi lay siyaar baax Thiam Demba ak Bokar maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax mbokk yi li laa leen indi loon tey fii ci Sénégal Buzz 221 di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi